waaw. gis-gis nga boo ñaam moo nekk maam yee maam ñu ko moog yaayam ak uh, ki nga xamante ne moom mooy yaay aussi yaay yaayam mu koy présenté ay mbokkam ngeen gis ko noonu jaajëf

am naa laaj. Mbaye dinaa ko taay télé bi télé bi. mais Modou Modou la gën a. da commencé woon ci télé ak ak ci télé bi. dem bu gàtt télé bi rek bu àggale bànn de. gis nga loolu yaayam di ko présenté nga xamante ni mooy ay mbokkam yi si daal di ko. moom asam waaw ko ñëw nañ fii ci kër gi. ma ne ko ñëw nañ fii ci kër gi. ma nekk nag sa yaay nag bu baax nag sa yaay bu nit bu baax nag ñuy ànd nag ci groupe yi nag la nañ ci am doog a jiitalu sa baay bi si lépp sa yaay nag di nit bu baax ñu ànd ak moom kaalam gi yal na nag ñu di la ñaanal nag ndax saa booy bëree am làmb dañuy dugg di la ñaanal ndax ñun doomi Pikine rek lañ bëgg ndax ñun Pikine lañ juddoo Pikine nan yaroo Pikine nan màgg kon ku fi nekk rek di suñu doom su loo yëngatu ñun ñëpp dañ ko jóg ànd rawatina nag yow buñ la juree di la ñaanal fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggal di ñaanal nag sa yaay bi nga xam ne ak sa baay bi nga xam ne yóbbu nga leen màgg yal na kaala gi nag yam na kaala ji nag cheikh bi ñoo koy ñaanal di ko ñaanal gudd fan di la ñaanal gudd fan wér di la ñaanal jàmm ngay am ay ndami ndami ndam ndax sa ndam rek mooy sunu ndam jërëjëf ñang voilà ba tey si présentation bi gën ànd ak baay bi ànd ak baay bi lii lii lii dafa nekk lu waaw lu rafet macha allah dafa rafet parce que doom bu nekk li ngay ñaan waaye bu nekk li ngay ñaan doomam xam nga macha allah billaay dafa nekk lu rafet macha allah waaw ba tey mënta ñàkk suñu ngelaw gi la ba tey mënta ñàkk moom gis nga moo ngi noonu di nuyu ay andi jàmmam mbokk yi xarit macha allah ki koy booy daal ngeen gis ko loolu ba waaw mën a nekk amul waaw. waaw waaw. gis ngeen gars yi am di jàmm yi gars yi pour dem nañ moo ngi noonu mu daal di koy wax <laughs> mbër. bu paree ma jël la bii sa tool lool lool bëggee. base bi moo ko tànn base bi moo ko tànn. non non defar naa la. waaw as as li lay woo rek mënuñu la def. bëree. ah wuñu taw bi am taw. taw la yëngu. loolu bëggee ndey. jàngat bi mu ne daal bu ñuy jox. ngeen gis loolu boo ñaa mu nekk si préparation Kanele ki nga xamante ne moom mooy papaam ak yaayam si organisation bi ba tey mu ngi mu ngi si. waaw mooy damaa si nga dale bi yaay boo ñaa gis ngeen nekk noonu jàkkaarloog doomam jàkkaarloog doomam mi nga xamante ni moo ko yóbbu Màkka. as waaw gis ngeen ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy kër Boy Niang ngeen gis nga ñoom tey di ngelaw bi. ngeen gis Boy Niang moo nekk di ngelaw bi. père gi booy. waaw sama père waaw. tey xamee naa tey xamee naa. dama maa pare xam nga seen naan sànq damay xaar ba tey. macha allah. mi ngi nii waa mère. ba pare. waaw.

waaw. léegi gis-gis boo ñaam moo nekk nii. moom. gis nga moom yaayam ak ki nga xamante ne moom mooy yaay aussi yaay yaayam mu koy présenté ay mbokkam ngeen gis ko noonu. Mama luta sen ni ba. Ni o de se. Ende me. Eh jama. Ya jama. Wah wah wah, belanja, belanja ya aku dulu. Mbaye. dinaa ko temps yii télé bi télé bi. mais Modou Modou la gën a. dafa commencé woon ci télé ak ak ci télé bi. dem bu gàtt télé bi rek waa télé fan na de. gis nga yaayam di représenté li nga xamante ni mooy ay mbokkam loolu yàgg na waaw. bu tawalee politique bi foofu moom. moom asam. waaw. Arrêtez. ma ne ko ma nekk nag sa yaay nag bu baax nag sa yaay di baax nag ñuy ànd nag ci groupe yi nag la Thiam doog a jiital sa baay bi si lépp sa yaay nag di nit bu baax ñu ànd ak moom kaalam gi yàlla na ñu di la ñaanal nag ndax saa booy bëree am da dañuy jóg di la ñaanal ndax ñun doomi Pikine rek lañ bëgg ndax ñun Pikine lañ juddoo Pikine lañ yaroo Pikine lañ màgg kon ku fi nekk rek di sunu doom su loo yëngatu ñun ñëpp dañ koy jóg ànd rawatina nag yow buñ la juree di la ñaanal fa nga bëgg a la yàlla yeggal di ñaanal nag sa ak sa baay bi nga xam ne yóbbu nga leen nag yal na kaala gi nag yal na kaala ji nag bi ñoo koy ñaanal di ko ñaanal gudd fan di la ñaanal gudd fan yow di la ñaanal wér di la ñaanal